may jàll ci sama mbokk yi ma bokkal dëkk ci wàllu politique damay wax li nga xam ne moo ñu boolee ci convergence taxaw na nañ mag ñi muy li suñu borom di wax ne si moo bi hablillahi jamian wala tafaraqoo biñ xoolee jàngat xam ne Cheikh Ahmadou Bamba fii ci Touba di xaadimu rasul maam Ahmari naag sekk ca janaw Seydi Alhaji Malick Sy Cheikh Ibrahima Niass ca Medina Baye maam di maamu Yoof Cheikh Omar Fouti Taala Taal ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ay mag lan woon fii ci réew mi kenn ku ci nekk ëtt ba nga nekk nga joxante woon loxo ak ka nga bokkaloon jamono loolu nag Sénégal rek ko am ñun nag biñ xoolee xam ne ay yàqkat ñi ngi jëg du ruur tool bi fenn fu ne ñu yëkkate ay kàddu yu dëpp wut ak la yàlloo réew mi yàlloo ko rawatina suñ mag ñooñu nga xam ne dañ fi liggéey liñ fi liggéey lépp jox ko yàlla ba mu jeex tàkk ca réew yi naar yi am nañ ay mag te ñooñu ña nga war a maan seen mag ca weddiwuñu seen i mag ñoom ñu jël si waat ci réew di weddi seen i mag ca seen mag tax ñu nekk ay jullit ñu jàngal ne am yeneen gone yoo xam ne nii ah Basir wax na ko léegi nii lenn lu ne ñu ngi ko yëkkati ay kàddu di ko wax jëmale ci internet bi fenn foo jàpp fu ne banqaas bu ne da nga ci gis ñu yëkkati ay kàddu du wax lu noonu ca moo ne ñi ngi làqatu ci gannaaw ay caméra ay ay ay internet bi te ñoom ci seen jëmmi boppam ñi nekkuñu ci réew te kenn ku ne xam na ne réew yam nekk moo ne am na ay magi réew lan moo tee tudd tudd ñu magi réew yooyu ñu nekk waaye ñu wëlbati ko waat ci seeni réew yi mag ci seeni magi réew yëkkati ay kàddu di di wax lu ne loolu dafa war a jeex ci ñi nga wax état bi mu jël ci ay engagement ndax mag ñooñu mu fi lim ñoom nekkuñu suñu maam ñun kese waaye danoo nekk ay pas-pas nekk ay gëm-gëm pas-pas nag ak gëm-gëm kooku laalal ku ne fu mu egg ak yow yaa ko def loolu moo lëkkate moo lëkkale li nga xam ne mooy convergence bi dem nañ ci sëñ Mountakha heure bii daaw mu jox ñu ci ndigal wan ne loolu ñuy def moom lañ koy defal ñu dem ci sëñ Babacar Sy Mansour mu wax ne loolu ñuy def moom lañ koy defal mi ngi ci ñu dem ci sëñ Assane Seck mu wax ne loolu ñu nekk moom lañ koy defal ñu dem yoof même chose dem Medina Baye même chose dem ci ki nga xam ne mooy waa Medina Gonaas même chose ca dëgg-dëgg kon convergence am na fu mu teg tànkam ñuy wax ne ñi ne ci réew mi di tuddee yeneen i kuréel di wax ne. am na lu ne ci seeni gannaaw ñu koy mbubboo ay sàmm jikko ak leneen ci ñun biñ ko jàngatee ba jàngat ko ba xool ko xam na ne kenn ku ne ci ñun sëriñ si boo indee boo waxee lu jëm ci ñaari tur man naa njëkk signé ku ne mooy signé parce que lislaam nangu ko beneen diine nangu ko wante biñ jàngatee ba xool xam ne dafa am yeneen yu ci lëkkatu ci imaam mii duma bàyyi xam na li ma bëgg a wax yàlla rek waxut rek ñaari tur yi bari na lu wax kon lan moo tax ñu jël ñaari tur yi jëf ko armo di xeex nanguñu ko lislaam nanguñu ko dañ koy xeex ñu ñëpp wante am leneen lu laxasu ci gannaaw lu ñuy wax politique loolu nag moo loo xel yi te nan xam ne it leneen da cee laxasu tey am na ci kenn koo xam ne yoon teg na ko loxo te ñëpp jàpp xam na ne fan yii jàll yëkkati ne kàddu yu ñagas jëmale ko ci murid mhm. ba tey jii mu nekk fa mu nekk di déglu ay xasaayit murid ñu koy wooyee murid muy wuyu murid kon nga xam ne Seex Ahmadu Bamba kenn mag ñooñu duñ kenn ñu leeral na nag ñooñu di ko wuyoo kon am na ci ñenn ñoo xam ne tey sunu waajuru suñuy kilifa yi leen signal nan xam ne ñii kat am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci kuréel googu ñoo xam ne seen pexe bu joyee kenn duutu siyaare suñu barabi maam yi bala may dikk ci lii nga xam ne def naa ko waaye ma xeeb ko lool ndax li tax ma wax loolu bu ma sañoon fii ba fa sama bët di yam wala bépp julit wala bépp jaam sax boo xëyee boo yeewoo fekk lépp mu tàgg ci sa kanam sama yërmande foofu la egg eggu tii ma teg ko fii di leen ko jox maa ngi ñaan ci kattanu xaadimu rasul di ñaan ci kattanu mag ñi ñii wax ne yàlla bu déwee ñu del si bi waaye yéen ñi fi ñëw bu déwee ne kenn ku ne yàlla na yàlla jox loo xam ne wallaahi si bul ñëw fii man sama gëm-gëm mooy loolu ndax joxe métti na waaye li joxe di métti métti métti nangoo ko gën a métti tal talal loxo oh, xol fees na xol fees na rongan tuur la jërëjëf Talla baax. Talla loxo moo gën a métti kon ñi ngi ñaan lii nit ñi di def ak lu ma di doon jaam yi yàlla leen yàlla taxaw yàlla leen yàlla yërëm yàlla leen yàlla jox kattan goo xam ne du dem fenn di tàllal loxo waaye it maa ngi wax ci fi ma bokk muy état bi muy la président Macky Sall na gën a taxaw. gën a sàmm gën a jàppale askan wi mi ngi ci mi ngi liggéey fenn fu ne ma fay def ay chantier fenn fu ne ma fay taxaw di jàppale askan wi waaye li ni ñaan nan gën a yokk loxo yi ñi koy jàppale nan gën a yokk loxo yi lii ma taxaw di ko def fii waat naa ko ci yàlla sama njaqu uh, bopp la du lenn lu ma jox ñun nag waaw APR nan xam ne président Macky Sall mooy président benn bokk yaakaar moom la yàlla teg mu jiite ko ñun ñëpp nag nan def unité ànd nekk benn bu mu bëggee ci lii ñu jëm yàlla may nu ci nam lay indi unité bi nag mooy kenn ku ne la nga man ñu bàyyee la ko ca kenn ku nekk jox loxo sa morom ca mën a doyloo sa morom mën a wóolu sa morom ca ba pare beneen bi ci tege mooy nga nawloo sa morom parce que lu bëree bëri mi ngi fi am xam nga lan moo ko indi ñàkk nawlante ñëpp ñàkk ñu bañ a mën a ànd de ndax wolof dafay wax ne nit boo ko yëgalee boole ko ci rek sagal nga ko loolu doy na ko boo ko joxul dara it boole gan ko ci boole rek doy na ko sëkk. lu bari nag boo amee ñàkk boole googu mooy am kon nañ waat ci xam ne kenn ku ci ne bu la joxee cër xamal na cër booboo mu ngi jege ci loxo président Macky Sall waaye gannaaw loolu it dogal su borom la.